maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen balu àq di leen baal àq ci korite gi di ñaan suñu boroom mu nangul ñu suñuy koor te sotti jàmm ak xéewal ci réew mi ak ci askanu Sénégal ak ci jullit yi ci àddina bi yëpp ak ci àddina bi yëpp di rafetlu bu baax di santaat yàlla bi mu ñu mayee ñu mën a teewaat julli gi fii ci euh, ginnaw imam Ndiour déglu khutbam nga xamni toujours daf ñuy tek ci yoonu njub daf ñuy tek ci yoonu mandute di fàttali li yalla ak yonent bi santane ñukoy sante diko ñaanal bu baax yalla bayiko fi ci suñu kanam te mu and ak wër di présenter mes vœux à l'ensemble de mes concitoyens thiessois et à l'ensemble du peuple sénégalais. mu ci wax rek moy li am solo mooy nekk ci jamono wax. wax nañu campagne nañu peuple bi décidé ci jamono jëf la ñu nekk ak ci jamono xaar résultat donc ñi nga xam ni ñoom la yàlla teg réew mi ci seen loxo ñu leen di ñaanal yàlla kattanal leen ba li ñu digaate ñu mën ko mottali te mooy wàññi dund gi wutal nit ñi liggéey teg réew mi ci njub waaw ci li ma daan yëngu rek ci samay activité professionnelle ak samay activité politique Il a problème d'abord présenter mes voeux à l'ensemble de mes concitoyens de Thiès et du Sénégal et prier pour que à l'occasion de cette corité, Allah le Tout-Puissant déverse dans le Sénégal sa miséricorde, que la paix règne, que la prospérité soit au rendez-vous et rendre un hommage à l'imam qui a renouvelé son sermon sur la base des enseignements euh, du Tout-Puissant et du prophète Mohammed et prier également pour lui, pour une longue vie euh, remplie de santé pour qu'il continue sa mission à la tête de la mosquée. Je voudrais également me réjouir du contenu de son sermon qui a porté effectivement sur l'actualité. Et comme je l'ai signalé, le temps est venu de l'action. Hein, le temps du débat est clos, le peuple a décidé souverainement, nous acceptons cette décision-là et prions pour que les nouveaux dirigeants délivrent les résultats qu'ils ont promis au peuple sénégalais. Moi, je suis au service du pays, donc je resterai toujours au service du pays, quelles que soient les circonstances.